Laye Création lañ seet si ñu ngi nii si euh, place léegi dañ koy bàyyi mu présenté wu euh, mu waxtaan ak euh, ñi nga xam ni dañuy faral di seetaan couleur urbaine version Mbedda. waaw comme ni ma koy waxee rek en fait que moom Laye moom dafa nekk nit koo xam ni dëgg la xëy na dem na tukki ñëw na Laye dafa nekk artiste complet artiste complet mooy ki nga xam ne tey jii foo ko coupe mu mu baatare naan la lu lu jëm si wàllum sabar wala orchestre tey manam son ñu ay doomu géwal noonu bi si moy da non namp li nga xamni moy mooy ar boko namp manam lepp lepp ngi ci ar aar da bari ay façon ba tax tey jii amaana que ni def ni amu ben doomu aadama bu meuna a taxaw ni man mako jangal li muy def amana ka may sonu borom la kon may sonu borom la koy tourner diko sante yalla sonu borom moom nga xamni ne mo jël may di jël li gën ci nit ngi koy def te nak ñu ngi sante yalla bu baax baax waaw

créer lo xamné ne tey en fait que dina la mëna a tey xam nga téré comme ni nu mel rek manam kenn ku nekk tey euh modèle da naan kii mo moo modèle bi ki moo ko gën ba ci dalu ngaay nga xam fu ko déggee dalu bu baax ngaay mo tax dalu ngaay ni nu mel non la aar chaque jour ñu bi ñuy liggéey métier bi ñuy liggéey noonu la amé ay création yo xam da koy def ci bi nga xam sa sam xel lay jóge dinaa ci jëm ci

Manam bonul ba de des ak moy yalla ak fen lay mom manam la wax si si bu là, manam lay mom boko je orchestre man damay jouer orchestre damay je musique damay jouer sabar le en fait que damay pédicure manucure damay tatouage pose ongle pose make-up crayon tout aussi tamit ak équipe bi ma équipe bi ma que maa nga fekk fi maam Cheikh bi nga xam maa nga fekk li xari Seck màgget ak yeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ñoo xam ne tey jii ba ci papa Abdou noonu noonu yaa ngi dégg yaa ngi dégg tey jii man moo fi nekkul Amet moo fi nekk Amet du fi nekkul maam Cheikh moo fi nekk yaa ngi dégg kon laay chaque jour rek te ñooñu ñëpp su ko fi tombel ku ne dina la defar loo xam ne dina la defar loo xam ne di nga euh, jommul doo ko jomm bu fen daal bon li bëggoon xam euh, la moo tax benn instant. Euh, nga demoon def euh, immigré maanaam nga génnoon nga génnoon moo benn instant nga ñëwaat. waaw ci loolu laa bëggoon nga wax ma li tax laay mu création dem ñëwaat dafa parce que aussi boo dund aar war nga mën a nekk te nag partout dans le monde laa bëgg wër man sama aar partout dans le monde fépp laay wër. te ku dugg si YouTube gis samay son di gis samay son gis samay musique son yi ma musique yaa ngi dégg bu baax a baax te incha bu dee aar rek dina ko yóbbu fu ne si àddina man moom loolu gëm naa ko te sama rêve la incha allah sama borom dimbali ma ne ma te avant may am si gàttal léeg-léeg bu la neexee da nga koy wat bu la neexee doo ko wat parce que aussi am na ñoo xam bëgguñu wat yaa ngi dégg bu baax baax moo tax tey gisoo sax watuma ko dama ñëw rek rëdd noonu boo xamee fi ngay jaar moom yaa ma gën a xam loolu doo du la jaaxal yi tamit am na ñoo xam ne dañoo bëgg dagg bi quoi bu la doo ko dagg bi moom da ngay ñëw rek def ko mu doon make boo xam ne ñoo xam ne xaaj bi nañu bëgg mais bi moom comme que aussi que dañoo nekk nii moo gën a gaaw def ko noonu. kii boo koy def day sax wala wala du am benn. noonoo du am benn effet secondaire moom bu ko du am benn effet secondaire aussi que produit boo xam ne la. Hmm. amaana que ñoo ko jëlee bitim réew di ko defaree fi moom saa moom moo teg tànk saa moom météo moom doon na li nga xam te maanaam ku solo te demoo demoo sa met mbaa demoo sa laay mbaa maam Cheikh mel na ni defoo dara ndax te xam nga loolu lan moo waral loolu maanaam li li liggéeyoon naan lu ñor taal ak lu nu gësam duñ benn. mais li ma bëggoon li ma bëggoon xam mooy comme des fois comme ñoom météo bi ñu leen defal. Euh, da génn seen euh, kii euh, da nga koy wax carrément wala wala wala da nga koy bàyyi noonu. da nga koy kii bi comme comme yéen yi dañ koy wat wala waaw si dañ koy wat kay mais nag ki nga xam tey ji am ñoo xam bëgguñu wat mën nañu comme kii ni mu ko def xale bi ni mu ko def dama ñëw rek tracé ko noonu noonu noonu mu dem ñu yaa ma gën a xam avec que sax dama ko xaw a yàkkamti ndax pour que un dañuy ñëw nii la damaa bëgg nga mélanger boo xam day am un mois ñooñu dañ lay mélanger boo xam ni day am un mois mais am nañu client yoo xam dañuy bëgg wax bëgguñu mu ciy fës di si yàgg moo tax tey jii xam nga ñu ñuy defal ay yoo xam ni dafa day am une semaine daa mu am 10 jours affaire yooyu noonu noonu la demee daal. fii daal moo ngi nii dañ koy xayma baax ko fii en fait waroon naa ko posé xef mais dama xam ni temps bi. soxna si yow wax si la création. ah jàmbaale dama dëgg yàlla boo ñëwee daal bëgg mu defal la defalal lu jong ma comme nii rek loo bëgg incha allah. léegi yow la wax sa moroomu jigéen ñi ñi nga xam ni xam nañ Laye Création sax mais xam ni euh, bëgg na noo ñëw euh, ci Laye Création. fii daal amul benn problème boo ñëwee loo bëgg ñu teg ci côté defal ba nga baax ba nga rafet ba foo dem kenn du la dàq incha allah bu neexee yàlla ndax laa yaa ngi fi amata ngi fi ak maam Cheikh incha allah bu neexee yàlla. waaw ah, comme loolu rek si comme comme kii ni mu ko waxee rek affaire que sa affaire sa saxaluñ ko la parce que yàgg na fi ñëw dama dem ba doon fi koo xam ne def nii mën na ko emprunté la kër gi laay man am naa kon ñu bëri fii nii nii si marché bi amaana ko si moom lañ jaar man liggéey boo ci nekkee da nga ci da nga ci sa xol sa xol bu sa xol bu ak sa xel mu dal xel mu dal mooy tey jii maanaam xam na ngay client xam na ngay maîtriser client loolu loolu moo tax te lay laay lay joo dégg lu ne bu ne rek amaana ko jàmmam moo ko waral boo gis say yéen li tax may waat sama client yi leen sant di leen gërëm te xam ne yéen maanaam laay yi yéen la fi nekkal ba nga xam saa bu ngeen ko yeewee ba 5 heures du matin dama jug ndax lan yéen seen i mission laay dox ci seen i bëgg-bëgg laay dox parce que li may li nga xam ne maa ngi koy am yéen a ma koy may kon man jigéen ñi man waaw man sax sama wërsëg si jigéen ñi la jugee moo tax kon damay dellu di sant sama client yëpp vraiment parce que man am naa client fépp ba si Istanbul boo demee Turquie ba Europe samay client yoo xam tey dan naa ma dan naa ma kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw mais foog ma demaat sama dëkk wane fa la nga xam tey jii moom laa gën a moom laa rot fii pour mën a ñëwaat fii wan leen ko ngir mën a jaabante di dem ak a dikk léegi li mu bëggoon xam mooy lan ngay wax si métier bi parce que tamit euh, Sénégal la euh, Sénégal am nay réalité léegi ñàkkul am na ñi nga xam ni euh, am na bët bu ñu gisee métier bi léegi yow lan nga leen wax si euh, lool ah métier bi moom en que métier boo dem rek am na am na ñu si bëgg am na ñu si am na si ñu si am na ñoo xam métier bi danaan métier boo xam ne góor waru koo def waaye ñun ñu nga xam tey jii kat ñoo ngi koy def ñoo ngi sant yàlla suñu bopp parce que ñoo ngi ci yor suñu kër maanaam amoon na kër laay moom ku xam ne ku gën a tukki nag xam ne xaalis bi mu dem moo ko mën a yóbbu laay ku xam ne xam yàlla macha allah ku dugg këram doon doone Hachim lu góor man kërëm rek ñu ñëwoon borom banké borom banké rasulullah xamna ne ñëwul leen parce que rasulullah ngir lan gëm su bop nit lepp lo dugg Dakar sax boo jaay dañ si fulu fula métier bi day man day suma amul won métier bi yalla xamna ni day man na fa ji yor na pot day maajal moom mu ko gën kon métier bi zëm bokku nak duma ko bolé dara motax duma ma gisee koy foyé sax daf may nakari billahi ma gisee koy foyé métier bi daf may nakari wallahi da xamna man métier bi moy la yag na ci xamna naa lu mu leen leneen la ma sax koko métier rek moo xam ku xamul métier bi mo koy mo ci wax leen mais ku xam deug deug deug deug do ci wax naka ci légui limu bëggon xam moy inshallah bon tabaski mi ngi waji ñëw. tabaski mi mo waji ñëw ak yeneen feewu yu ak yeneen matériel bi ak yeneen silu bes tax ak yeneen xef.

tabaski gi incha allah dinaa def promotion. promotion bi nu teg benn iPhone. iPhone képp koo xam ne make up naa ko mbaa posé naa ko dinaa ko photo yaa ngi dégg après koy tirage benn iPhone bi baax a baax a baax a mu ngi si biir boo xam ne ku maanaam képp koo xam ne tey jii kat génn nga sa tur tur génn la ju génn la ci laay création ndax defoon naa ko fi amaan na ko duy fen ñu may dégg après télé bi xam na ne duy fen ndaxte mus naa ko fay def. émission boo xam ne rajo Ngaye la départ en fait que ñi nga xam ne tey jii génnoon na muy ñaar nit ñëpp defaral naa leen kon koo kon su ma ko waxee ki jox añ bu la diggee reer war nga koo gëm su ma ko waxee waa Ngaye war nañ koo gëm xam ni kat iPhone bi dama ko teg te du caaxaan la création mu leen di xaar. léegi léegi bala ñuy ñëw si adresse beeg ak emplacement beeg yooyu. léegi leen parce que hmm. sànq nee nga. en même temps adresse nga ak yooyu. léegi ci wàllum aar bi laa bëgg nga. am na nga xam da nga koy baax yi nga xam ne euh, dañuy seetaan def ko seen TV. waaw wàllum aar moom jamono ji jigéen ñi make up lii lii nga gis nga waa nga jël sa karaw yi rek nga wat ko boo paree kenn du am lu nga nuroo maanaam make up dafa bari façon te nit ku nekk jëmmam am na noo ko war a make up nga xam ne tey jii bu maquilleuse la dem am make up yoo xam ne day carré am yoo xam ne day wàcc am yoo xam day doon. évasé am ñoo xam ne même xaaj bi am na ñoo xam ne waraloon nga defar ndax boo xoolee seen seen make up seen forme make up méngawul ak ni nga xaaj leen. ba yow daal kii ngay xool si xar kanam. xar kanam laay xool ngay xool a. seen borom nag mooy def bind bind. ñun ñëpp mën a make up waaye kenn ku nekk sa jëmm am na noo ko war a mën a make up moo gisoo bii nii make bi nga gis nii ñaari. ciar bët yi la xol motax ma genn ci ay ciar pour mu maase ñu and ak ñii la def te bi boo ko defar guddi la. kon dessin ya ko def. wa dessin bi man na lii maa ko dessin ni parce que dama yëngu ci yitam ay salon yu bari xamaa bi nek ma koy defar mais belen na la amad moko ko defar tatouage beleen na la xam ñoo fi nekkoon do man ak moom <coughs> waaw mo nekk nonu waaw. bon léegi sànq ñu ngi doon waxtaan ba nga ñëw si wàllum aar maanaam côté musique tamit parce que tamit comme ni nga ko waxee polyvalent la yi nga xam ne xamuñu ko euh, polyvalent la léegi mm-hmm. euh, xam naa dañuy dugg foofu noonu mm-hmm. ñu tàggatoo léegi nga jox waale adresse bi pour ñi nga xam ne xamuñu euh, fi nga nekk waaw lay création mu nekk si ancien crédit mutuel bi laay moom na ko ñi nga xam ne xam nañ ko marché bi foo ni laay fi mu nekk dañ la jàpp ba sa loxo yóbbu si laay fi mu nekk waaw polyvalent bi dëgg la man damay musique musique sax bu namun fekkee da nga naan sama ñetti son yoo xam ne yëpp maa ngi ko dóor Istanbul te di waajaat yeneen nag beneen boo xam surprise la doon bu bees tàq boo xam ne gëm nañu kat bu génnee dana mën a yëngal Sénégal baax yeneen bi te ñoo ngi si ñoo ngi si répétition yi ñoo ngi ci yëpp te xam naa ni gëm naa ni kënu du doon sama borom day maye rek dinañ nekk njëkk si man dem ca incha allah saa yi kontaan si déplacement bi nga déplacé parce que def garaawal mag déplacement tafa tëf di